waa tey ji nag ñu ngi woon ñu ngi sale aérodrome fekk si dikk na seet si suñu yaay boy di waxtaaneek moom nag si suñu émission li ci kër gi yaay boy ñu ngi lay nuyu bu baax nag di kontaan si yow xam nañ ni bett nañ la trop euh, sa yaram xam nañ sa yaram neexul sax waaye dañu xam ne si biir kër gi lañu bokk moo tax ñu ñëw si biir kër gi fas yéene waxtaanee ak yow si suñu émission li ci kër gi ñu ngi lay nuyu bu baax euh, maa ngi leen di fay kontaan na bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamina maa ngi leen di delloo nuyoo bi ah di leen wax ne leen bisimilah yegg si ngeen maa ngi leen di rafetlu si seet si bi ngeen ma seet si macha allah maa ngi leen di nuyu di leen sant wax ji macha allah parce que fan yëpp dama tawat comme ni nga ko waxee rek mais nag samay doom ngeen comme da ngeen maa betti nit moom bu la gan betti da ngay jóg rek na ko entré kon wax naa leen entré macha allah. ñoo ngi nuyu lu bu baax nag di kontaan si yow bu baax ak ni nga xamante ne que ni nga ni nga ñu dalalee si biir kër gi wan nga bu baax ne si kër gi la bokk moo tax ñu bett la nii fas yéene def yow émission bi nga xamante ne que mooy li ci kër gi ñu fas ne waxtaanee yaay booy nag joŋe joŋe la ñuy waxtaanee lan moo waral joŋe lan moo tax ñu naan jonge joŋe mooy euh, léegi da ngeen ma seet si woon si affaire yi joŋe. Mhm. waaw léegi alhamdulilah rabil aalamiina. maa ngi gannaaw yàlla yonent bi maa ngi sant samay waajur di nuyu sama borom kër sama jëkkër maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko sant bu baax a baax ndax tey lu ma mun tey lépp moom la su ma tere woon du ma dem su ma aaye woon duma dem waaye tey soo demee ba ñëpp xam ma tey ngeen ñëwee di ma fessi yàlla ak moom la parce que tëjuma terewuma maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak wérle ah di wax jonge moom jigéen ju nekk dangaa war a jonge mhm. jonge moom ci sa biir kër ak ci sa biti yëpp ndax jigéen rek ëmb na lépp. Mhm. doon góor ndax am na góor ñoo xam ne dañoo jonge mhm. mais góor bu jongee mhm. kon mas jigéen ndax jigéen na tax muy wax jonge dëgg jigéen dafa war a jonge góor jonge loolu la yaay booy wax euh, waaye ji dafa dafa mel ne jigéen gi moo war a gën a mën a jonge ñun daal dañu seet si woon si yaay laaj ko ba xam ndax jigéen euh, nan la war a doxe nan la war a doxalee si biir këram comme jonge ba ñu xam ne kii jonge na si boppam ah laaj nga ma lu ma neex parce yaa booy bii day waaw sama borom kër. Mhm. wax dëgg xam naa ne daf fi nekkul mais bu fi nekkoon moom dina si sànn kàddoom. Mhm. parce que ba may sëy ak moom depuis xale. à l'âge de 15 ans laa sëy ak moom. te boobu ba tey maa ngi jonge ba ni may doonee mag maa ngi doon jonge. très bien yaa moom du rus <laughs> utiwut keneen xoolul keneen. ndax dangay ngay jonge si biir jonge si biti. te lépp macha allah loolu mun naa ko te maa ngi koy def. Mhm. waaw jonge tey jonge la ñuy waxtaanee dégg nga yaay booy li mu wax noonu si jonge euh, des fois da gis jonge yoo xamante ne ki nga xamante ne day jonge si biir euh, si si att rek lay jonge mhm. da ngay gis koo day jonge day yënkutu ci att bi te bu demee ci kii bi dafay ne dafay woo <laughs> dafay mel ne muus si biir kër gi si biir si biir néeg bi mhm. danay wo wàpp day mel ne ku muuma si biir kër gi pour man jonge si biir kër gi la ak si biir néeg bi mhm. waaw laaj nga ma lu ma sawar a tontu nag jonge moom saa yoo ko jongee rek saa yoo ko defee rek du si ëtt bi nga koy defee mhm. da ngay jonge si ëtt jonge si biir néeg mhm. parce que xale yi tey yi mhm. ñun de mag ñi nga xam ne ñoo newoon suñu yaay dañ ñu doon woo di ñu waxtaan ak ñun di ñu yedd di ñu wax affaire yi jonge jonge soo déggee ñu naan jonge soo diggee si biir néeg bi foofu la jonge bi war a ëppee sax parce que nag sa jëkkër da nga war a jonge moom wan ko li nga xam ne bu ëllëgee bu génnee leneen du ko saf ndax am na góor ñoo xam ne ñu ngi fi bu ñu génnee am lu fëq seen bët yi parce que dafa fekk yow jógewoo si biir góor da nga koy wan loo xam ne bu génnee lu mënta gis si biti danaan ah du ko jaaxal voilà du ko jaaxal lii jaaxalu ma mhm. ndax lii kat nday xaar ak moo koy defal mu ngi may wan lii mu ngi may defal lii bu ëllëgee bu génnee yoonam du si nekk liñ naan jinne bu la bëggee jommal da lay njëkk a xoy dëgg la kon da nga koy xoy biir ba pare lu leer nga wax su génnee leneen du <laughs> lu leer nga wax yaay booy nun nga ko waxee noonu noonu la demee rek ah, sa borom kër jë dem na xëy ba wàcc su ñëwee gatandu ko jël saagam raxas ay tangal ko ndox nuggal ndox bi ba mu nugg na nga fa tànk yi dugal si raxas tànk yi ba mu set foofu la tàmbalee di jaay lan nga bëgg ma indil la añ bi dikk taaj añ bi taaj ndé lu mu soxla nga ñëw préparé ko enfin ngeen dugg si biir kër gi si biir néeg bi mhm. looy gis lu nekk rek si mhm. biti la war a commencé si biir néeg bi waaye waxuñu la nga commencé si biti rek si biir néeg bi dem mhm. euh, bàyyi lépp mu sedd looy gis rek boo boo commencé si biir rek si biti ngay si biti ngay àggalee boo commencé si biti si biir ngay àggalee waa sama mbokk jigéen ñi nag euh, tey jën fekk si woon nag suñu suñu tataa Ndeye Xaar mu waxal ñu nag mu kii gindi nañ nag si joŋee gis nga dégg ngeen li mu wax macha allah joŋee léegi yaay booy góor gu joŋee nag moom nan la war a doxalee si biir këram ah góor bu jógee man di mhm. ki ma am macha allah. ndax li ma wax rek ba ñuy sëy à l'âge de ans. Mhm. lañ doon sëy te moom it noonu la jógee ndax bu wàccee. su ñëwee bu ma fi fekk li muy njëkk a wax xale yi ani seen yaay su yegsee fekk ma toog danaan ma ah jekk namoon naa la. Ah, tey moom toute la journée xaw ma lan laa liggéey bañ na ko ba jekk la may wooyee. man ma koy ooyee yaaram. waaw jóge mhm. góor gi jigéen gi yëpp la. da koy wan say doom. dëgg la sa doom yu góor wan say doom yu jigéen. bu sama papa ak sama yaay ni ñu doon bundee si biir kër. Mhm. ñoom it ku si am sa jabar. lu am solo nga wax ko téye noonu. Mhm. comme ni ma sama papa nii laa doon gis sama papa di doxaleeg sama yaay. Mhm. doom ji jigéen ji bu sëyee. dina na sama yaay de nii laa doon gis muy doxalee jëkkëram waaw damay dégg faral di dégg si olof yi ne doom ju jigéen jàngaaniwul ndey jaay reyukaay ba lu leer nga wax noonu yaay booy gis nga jigéen xale jigéen yi dañuy baax ñuy xool si seen yaay yi ndax boo xoolee ni nga xamante ne que noonu la sa yaay jógee noonu lay toppatoo sa papa bu baax nga mhm. xool ko loolu boo demee ëllëg nga dem si sa kër noonu tànk yooyu si ngay dox mhm. ndax dëgg macha allah li nga wax dëgg la toujours bu jot man de sama yaay moo nekkoon sama royukaay dëgg la man li ma wax rek saalum saalum laa kaw laa dëkk fa laa juddoo fa laa màggee mais man sama yaay dafa nekkoon sama idole te moom it da doon wax naan ñëw leen ngeen toog ñun suñu kër mm-hmm. foofu lañ doon fréquenté samay moroom yépp dañ doon ñëw suñu kër di fi fréquenté bu ñu ñëwee naan ma day xaar de sa yaay dafa xumb mm-hmm. presque sama moroom yëpp moo ñu doon jàngal boo waxee mu ne yaay doom ak jigéen yaay ak doom amuñu nëbboo dëgg la parce que moom daf ma doon xelel su lu bëri di ma yedd si lu bëri mhm. boobu sax amaguma jëkkër ma am ko nag mhm. doxee ko ndax macha allah sama yaay dafa jonge war nag ma ñëw rek jël ay tànkam sama borom kër xam na ko samay doom yi xam nañ kontaan nañ ci yow ñu fekk ñoo ngi bëri si biir kër gi ngi kaf ñoo ngi bëree dama koy ñaan rek sama allah bi gudd fan kër gi neex wér ak wér mhm. léegi nag xale yi dama bëgg ñuy jàngi xale yi léegi dañuy jàngiwaat jonge du nii rek sañse Mm-hmm. ak solo simmi mm-hmm. loolu du jonge jonge danga ko war a maîtriser ci sa biir kër ak comme munta doon nag mm-hmm. même say ci kër sax war nañoo mën a dugg ci sa kër xam ne sama xarit bi kat jabaram ji macha allah. ku dugg foofu da lay ci biir kër gi rek lay lay bu dugg see si biir kër gi lay xam ni kii jeeg dëgg la fi fekk. fekk na fi jóg jeeg bu joŋee. fekk na gis nga joŋee dëgg dangay dangay teel a jóg préparer sa kër. dëgg la bu sa xarit jëkkër yi ñëwee si biir kër gi dañuy xam ne jeeg piir lañ fa fekk. Mhm. waaye yow yaa ngi. xaar ba midi nga yeewu. Mhm. fekk fekk defaragoo dara bu bu sa xarit jëkkër dikkee dana ah. fekku duma teel dem si moom ndax boo demee doo ko teel fekk mu yeew gis nga da ngay teel a jóg teel a préparé sa kër defar ba mu normal mhm. ba mu tegu si temps sa jëkkër daf lay gën a nopp te gis nga góor yi lu baax rek lañu bëgg de mhm. lu baax rek lañu bëgg te lu baax rek la ñuy wër boo defar <laughs> Souleymane <laughs> yaa ngi may reeloo boo defaroon ba mu baax dañuy génn si biti xooli ku defar ba mu baax. ñu def ni corriger ak moom. ba mu baax. dëgg la wallaahi loolu de laay ñaax sama mhm. doom yi. Mhm. ndax man tey ba ma see tollu def naa ko. fi mu ne nii maa ngi jëm man. dëgg la mais ba tey bàyyiwuma ko xale yi. ba tey damay jonge uh-huh. kon damay wax sama doom yi nañuy jonge jonge moom mhm. bu si gis nga jigéen boo ruusee rek doo jonge jigéen mhm. boo rusee doo joge dëgg la jigéen waroo rus mais boo rusee rek doo joge mhm. jigéen dangaa war a ñàkk jom dëgg la ci sa kanamu jëkkër mhm. da nga ko war a woon ne ko yow la ma yàlla booleel nga bokk kook moom ba mu jeex tàkk waaw ñun de loolu lañ xam te man mii de loolu laay jëfee moom laay jëfee sama borom kër ba nit ñi sax samay xatti jëkkër dañ koy oo naan ko yow de wax dëgg fa neex yàlla am na ñoo xam ne eh, waaw dëgg la loolu yaay boo ñu ko waxee ni am na luñ si xam ndax dugg si nañ si sa biir kër gis nañ ni nga toogee bu ñu ñëwee fekk nañ la ni nga toogee macha allah ñu kontaan si yow loolu gis nga sama mbokki jigéen ñi laay waxal nañu xool si yaay booy bii ñu ko fekkee si biir këram ni ak ni mu doxalee dañuy xam ne yaay booy bi ku man boppam la macha allah ah da ngay gis jigéen yoo xamante ne que dañuy tayyal si seen jëkkër dañu ciy tayyal duñu toppatoo seen jëkkër ñoom daal dañoo dik boo wàccee dem dikk ñi ngi lay bandeko papa sama lii day metti tey tey dama feebar day dem ba xamante ne ki góor ki day tayyal ci yow sa jëkkër suñu ñëwee war nga ko jàpp-jàpp boo xamante ne que gatandu ko gatandu boo xam day kontaan day yàkkamti si dugg si biir mm-hmm. loolu lépp si xeeti jongee la boobu mm-hmm. wallaahi li nga wax dëgg la ba fan yi rek la sama borom kër liggéey ba ñëw fekk ma toog fi dafa yegg si rek ma lëngu ko yaaram ñëw na mhm. xale yi dañ ma photo mhm. dugal ko yónnee ko samay famille ku si nekk di mhm. wax naan ñun suñu famille noonu la ñu mel dañoo jonge ñun dañuy jonge ba ba ñuy màgget ba ba ñuy tëral yëkkati dañu tëral tëral dañ siy fas yéene di si jonge ak suñuy borom kër waaw loolu moom loolu la ñaan yàlla ñu dema dema dem ba kenn ku ne yor a bant ñu seq ko ñun ñaar kenn ku nekk di laajte sa morom Mhm. di fàttaliku li nga xam ne fa lañ jaaroon parce que loo doon xale-xale ëllëg di nga dooni mag di nga tële mhm. lu bëri dootoo ko mun mënati mhm. mais nag na fekk su boobaa na fekk rek ñun ñaan ni ko séqoon mu newoon lu rafet. mu leer la ne ba jooju fekk ñu ba ci kaw lal. wallaahi ñuy yëkkati dañu su boobaa dañuy wax ne ah ñoom bay nañ seen waar ba tàyyi macha allah seen mariage ñëpp dañoo dañoo bëggoon a mel ni ñoom parce que ni nga xamante ne que ñoom la nekkee woon nekkin bu neex la dundit bu neex la loolu day dem ba seeni doom dañ koy fàttalikoo. Mm-hmm. waaye si jëkkër jógee fii rek wàcc ñëw sonn. Mm-hmm. ah mm-hmm. balaa nga koy jox ndox rek di naan rek nga tegal ko facture courant bi wala nga jox ko facture ndox bi. day afale du mën a lekk fekk parce que moo ngi xalaat ni lan nan laay def ba fay ndoxu courant bi wala nan laay def ba fay ndox loolu lépp balaa muy dikk ak ay yër ko nga jox ko ndox mu naan nga nuggal ndox jox ko mu raxas tànkam ba mu set ngeen ngeen waxtaan nga soo nga ngeen ba ngeen tëdd ba si guddi nga ne ah fàtte woon naa waroon naa la jox kat indi woon nañ fi facture ndox bi wala indi woon nañ fi facture courant bi bu boobaa dafay dafay dem ba nga xamante ne que lu mu loo xamante ne que lu mu lu mu lu ko neex lay doon mm-hmm. parce que na ko ko joxee la mm-hmm. waaw ko joxee la joxe sax waaw dafa dem ba bokk si. Mhm. jonge mhm. dafa dem ba bokk si sa jëkkër sa da nga ko war a jàppale. dëgg la waroo ko xaar. Mhm. bu la yàlla dénkee dara. ngay jaayantu. wala ngay faraatu. am na lu bëri loo xam ne bu si xaar sa jëkkër. dëgg la da ko si jàppale. parce que euh, yéen ñaar yéenay sëy. yéen ñaari jur njaboot gi. kon bul na rek sama jëkkër bi ma takk. moom lay xaar si saabu bi moom lay xaar si omo bi. moom lay xaar si lii déedéet. lu dafa bokk ci jonge mhm. sa jëkkër wàcc nga ne ko lii de indi woon nañ ko fii mhm. mais fay naa ko wala jënd naa lii mhm. wala lii ah. maa la ko jëndal maa la man sama jëkkër dem na Casamance parce que militaire la dem na Casamance ndax xam nga ku xam militaire moom toujours sa tenue ngay sol ak sa blouson mën a ma bu ma xotti damay redoubler parce que ñun xamuñu ay solu ma ne ko amul benn problème bu ma la xottil comme du ma la xottil mhm. mais lam wax man xaaruma ko damay ubbi armoire bi jël yërëm mhm. dem jëndal ko basin mhm. yóbbu sa tailleur bi mu ñëwal ko xaftaan ma paquetu lépp teg ba mu jógee Casamance ñëw bañ na suba la julli gi mi naan ma ndey passé la gooma de ma ne ko déedéet xaaral dama jàpp ba si guddi gi avant ñu tëdd mun a ma yow gisaguma nga génnee mbubb mi paaseel ma de mais fekk ñawal naa ko ba pakete ko mais dama koy bett ak ay dàllam ba ñu xëyee si suba teel gi ma ne ko comme aw ma jot parce que suba la kore suba la tëbaski ndax man tëbaski sax maay jëndi xar tëbaski man maay jënd xar mhm. parce que mu ngi woon àll ba toujours lu mu yëkkati dafa may jox man maay dem jënd lépp xari tëbaski xamu si dara mhm. du dem yi ba tey nag. Mhm. ba nii nii nii nii sama doom yaa ngi nii maay jënd xarit Tabaski ba tey maay dem daral ba uti xar. ñëw yeewu hmm. ñu xëy suba mhm. teel mun a ma ndey man de maa ngi mer. Mhm. parce que yow paase loo ma. si laa ubbee armoire bi génne yére bi bett ko. kon dafa kontaan. mu ne ma kon lii nga ma defal ma ne ko ba ngay wax sànq ba léegi naa la paaseel ma naan la dinaa la paaseel. dafa fekk ma bëggoon laa bett. préparé naa la naa la sa maraakis préparé naa la sa yére bu def dafa taxaw ñaanal ma kon loolu nag dafa bokk si ñoom du jëkkër rek mooy def lépp mhm. jëkkër léegi li xale yi xam mhm. jëkkër boo ma joxee ma def boo ma joxut ma gedd wala ma ma ma ma fay ñun séyewuñu noonu jonge bi moom mhm. amul jonge nii rek sama jëkkër la jonge fépp nga ko foo ko làmb rek na fekk mu nooy fépp waaw jógee si sa jëkkër jógee sa bokki jëkkër ñoom ñëpp ñu xam ne kii kat dafay jógee jeeg dëgg ngi nii waaye nag ne nekk jéegu taa sa taat sa taatu jëkkër kese loolu mënul nekk gis nga boo jógee bul ko yemale sa jëkkër kese de da ngay jógee jógee laaj sa famille jëkkër ñi nga xamante ni ñoo di seen njëkkee sa goro ñëpp xam sa jógee xam ni kii kat mhm. jeeg la sa jëkkër tamit daf lay fonk mhm. respecté la mhm. mais gis nga jigéen bu bari kersa jógee woom du feeñ ndaxte dafay mel ne lu rëy dafay mel na lu rëy parce que dangay dangay bëgg a def lenn li sax sa kersa moo la koy téye ba doo ko def jigéen dafa war a oyof tooy ba jëkkëram respecté ko mhm. ba nga xamante ne ko lu mu bëgg si jikkëram daf koy yomb mhm. macha allah sama mbokku jigéen yi damaa bëgg ñu defarwaat bu baax nag loolu laa bëgg nga xamante ne que ku góor ki nga nekk si kër gi mooy si borom kër bu mu namm dara si biti mhm. defar ko si biir kër gi ba mu baax ba bu génnee du namm dara góor nag moom naxay naxay mba <laughs> <laughs> boo ko daxee rek yàq moom mhm. waa góor moom bébé la rek mhm. da nax nax naxtaan parce que parce que suñu mbokku jigéen ñi bul ne jonge ba ngay doon xale mhm. ba da ngay ba ngay doon mag da ngay bàyyi jonge déedéet màggatam ko la lu màggat dese ñalut dëgg la leer nga wax lu màggat man de lu ma màggat dinaa dese ay wécc di sew <laughs> te duma nangu benn jigéen di ma ko yóbbul kontaan naa te ba tey nag maa ngi jonge ba tey samay doom a ngi nii waaye xam nañ ne damb seen yaay daa jonge bañ na ko bu bu wàccee fee lay toll naan ana ana sama jekk ah. man na ko ana sama yaaram <laughs> kon loolu ah. dama bëgg xale yi di xool si mag ñi nañ xool ñuy sëyee mhm. ak ni ñuy joŋee ñi di ko continuer ba tey waaw kay su sa taan day xaar a ngi nii de jéeg yu bari ñuy seen biir kër yi nañu xool nañu abonné suñu seen bi nag seen info 8 TV bu ñu jàkkaarloo léegi suñ tataan day xaar ñu ñu fekk si woon si biir këram gis nga ko ni mu toogee si biir këram macha allah dikk nañ ko fekk mu defar ba mu baax defar këram sañ sa sañ bu normal bi ah suñu papa jigee ko lool nag xolam jigee ko kontaan na ci moom bu baax a baax te tàndee xaar amul dara loo ñu deseel li nga xamante ne que moo na jigéen war a toppatoo borom këram yépp wax nga ñu ko macha allah ñi ngi lay nuyu di la wax nga tàggatoo nga nuyoo. ah alhamdulilah rabil aalamiina. Mhm. maa ngi leen di nuyu. Mhm. di leen fay di wax naan kontaan naa si yéen. Mhm. di ñaan nag seen télé bii. yàlla na ne si kaw. yàlla na ko yàlla téye. yàlla na ko yàlla teg loxo. ba mu mel ni TFM ba mel ni Sen TV. ba ñu leen di dégg. fu nekk le monde entier ñëpp di leen dégg si kaw si kanam incha allah ñaanal naa leen te yal na ko yàlla def parce que vraiment ay xale yu baax ngeen it waaw parce que man munuma xaw ma jigéen koñ bi rey na jigéen ñaa ngi fi mais da ngeen a bàyyi lépp ñëw na xaaral ñu dem seetu suñu simple yaay booy bi nga xam ne mënul wax xamul dara kon maa ngi di ñaanal di leen sant waaw waaw tataanday xaar kontaan nañ si yow kontaan nañ si yow fu kontaan yam ndax ni nga xamante ne que ni lañ la gisee sa biir kër bett la fekk la nga tawat ñu dugg si sa biir kër bëgg a def ak yow émission nga nangul ñu ko tamit ñu ciy kontaan bu baax nag di la wax ne la yaay booy télé baa ngi noonu sa télé la seen baa ngi noonu sa télé la dangay wax sa mbokki jigéen yi nag toujours nañ nañuy nañuy nañuy ànd ak ñu si suñu seen seen info 8 TV di si abon saa su nekk di jàkkaarloog soxna Abi si seen émission li ci kër gi gis nga li ci kër gi nag liñ leen indil tey joŋee xale jigéen yi nañu joŋee si seen jëkkër yi nañu joŋee te bàyyi titre bi bàyyi mën a wonu gi ah joŋeel leen léegi nag maa ngi nuyu bu baax sama kamaramaan di nuyu ñëpp na bàyyiwuma kenn euh, ndey joor nuyu naa la bu baax ci yàlla ah Baba Dem maa ngi lay siyaar di siyaara sama yaay bu baax nag euh, Mamina Fatima nga kooku jigéen gu joŋe ba tey mu ngi sama kër bàyyi nga dara ñaawul macha allah ñun ñi nga xamante ne ñoo di ay doomam ñu ngi roy si ñoom maa ngi nuyu suñu waa kër yëpp nag bàyyiwuma kenn waa kër ma sëy waa Malicounda Mbour Sénégal yëpp laa nuyu jox leen seen wàccuwaay merci beaucoup yéen a ngi ànd ak soxna Abi seen info 8 TV ah macha allah si waxtu wi ok merci